كلا لينبذن في القطمة وما أدراك ما القطمة نار الله الموخدة بآية جيخ بنا يفي بو مك بو كبير مك أم ألال يالا دي واخ اخ موم نه موم علالم جي نمانك في سخال منك بيل بيلل دي دا دي ني كشي كا سي سفارا بو نار الله سفارا يالا لا بو خامنا بي دانيو كا day dem di ka lakk ba àgg ca xol ba nekk fa nag téye ko kon fa hadihi al irtiqaad an al insana الإنسان يجد amama al mashakil la يمكن an يجد laha illan min amwalihi nit pour mu dem ba am xéewal yaakaar ni xéewal gi du jóge ci loxam wala mën naka saxal pas-pas bu yàqu la pas-pas bu yàqu la ndax nit ki am alal day toog am jafe-jafe bu mu boo xam ne alal du ca man dara nit day am mu am jafe-jafe yow xam ne bii lu ko jaaxal loo xam ne alal du ca man dara kon alal du bunte boo ko fëgg rek ñu ubbil la da ngay am sa doom nga bëgg ko lool mu tëdd feebar loo am ci alal nga def ko sa mu tëdd feebar yàlla jël ko yóbbu ko mu dee mu dee lu ca alal jaman dara nga am soxna boo bëgg lool mu nekk ci sa biir kër mu tëdd feebar dee alal jamanu ca dara walla mu tas sax muy dund ngay dund sëy ba tas te alal ju du sa man dara kon alal lu mu mën li war mooy nit li nekk ci kanamam mu di dee mu ragal ka ba di ka daw dee dafa dikk xamula yàlla dafa doy waar ci ñooñu ko tiit ba defee na mën nañ ko rëcc ci man wala kàntan wala pexe wala xalaat wala dugg ci lu rëy loo xam ne li foog nga ne li dana la ko mën a dana la ko mën fanqal njuumte la qul inna mawt الذي تفرون منه فإنه ملاغيكم ثم تردون إلى عالم الخيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون القرآن لا تيالك وخ نينا دي جوغون ين جوك ديكا داو ديكا داو راغال كو بدي كا داو دين ين دي داجيخ موم يالا واخول نه سين غناو لا لين جوغي بتلين دي دي سي سين كانام دين ين دي دوخ بني روج تاخاو موي موم غاي موم مو جيل دو جوخ كين رانديو نك بلا سانغام لا لا فك ريل dee du ko def waxtu sàngam dee du ko def du dee moo lay jox rendez-vous dee déet wa aynama takunu yudrikumul mawt foo leen man nekk rek dee mën na leen fa fekk bee ba ñu ñeme ko fu ñu man nekk danañu fa fekk yàlla ba mu ñuy fekk nag mu fekk ñu ci lu neex yàlla ba ñoo fekk ci sofaan nañu yàlla musal ci loolu xamula nit dana dem ci dund ba wóolu boppam wóolu boppam wóolu man-manam wóolu bakkenam wóoluy xalaatam wóoluy jëfam te kooku njuumte la bu demee ba wóolu nag boppam nag ci foofu nag jële fa yàlla foofa nag tarxi say dikk ndax yow mi dem ba wóolu sa bopp wóolu sa pexe wóolu sa bakken danga jékki rek sa bëñ di metti dootoo mën a toog di mëkk miir yi di daagu doo xamati foo jëm te bëñ lay metti rek wala sa loxo néew bi suñu këbbër xottiwul ba dërët ji génn dëtt ji génn ci fitna ngay nekk ana óolu gi nga wóolu sa bopp kon boobu bu sa boppoo doyoon kon loolu bu la dalee di nga mën def fexe ba mu jóge ci yow dem waaye doo ko mën li war mooy yooyu buy am na fekk nit ki jël boppam teg nekkinam ci yàlla tekk ci gëm yàlla gu sell bu ko tegul ci gëm yàlla rekk dafa dal yàqule ndax bu jëlee boppam jël bakkenam jël xalaatam jël jëfam lépp jël ko tekk ci yàlla mu toogu ci yàlla toogaayam boobule moo koy moo koy garantir ci kooku yàlla koy garantir wa man yaamal min asalihaati wa huwa almumin fala yaxafu zulman wala hadman kooku yàlla ko wax nee na képp koo xam ne ki dafa gëm tey jëf-jëf ji yiw bu mu ragal mukk ku koy tooñ bu mu ragal mukk kuy foqati àqam bu mu ko ragal su nit sa ak yàlla dana ko foqati ci mom delo wat la ci ak te ko la togn dess nak ku la togn rek dess ci nak yàlla ko wax gisul la yonti yàlla Haruna yonti yàlla musa yàlla daf ko jël yonni ko mok Haruna yàlla dafa yonti yonni yonti yàlla musa ak Haruna fu mu leen yónni ci Firawna jàmbaar ju jojja jooja fir bu bon bobo te dëgër ci mom la len yoni way lu yàlla wax khala la takhafa fa inni mahakum asmahu wa ara yàlla nene dem len ca mom mangi ngi ànd ak yéen dégg naa lépp xamna lépp dem len kon ku yor sen karange yàlla ko yor li war mooy nit dafa war a gëm gëm goo xam ne gi dana ko téye bu yëngatoo rek yàlla ko yëngal su taxawee yàlla ko taxawloo suy dox yàlla koy doxloo mu wér boppam ci aji kantanu gi nga xame ne gi ku kantanu la kantanal te kantanum di des moom borom kantan